nuyu nañ leen dal nag eh, jàmm ci xam-xam ku wax été wax li nga xam ne moom mooy plage wax yi tamit li nga xam ne moom mooy bisin ak lépp loo xam ne moom mooy ànd ak vacances rek waaye seet nañ ñi nga xam ne nag eh, ñoom ñooy lapp bari loolu ci wuti nag ci banlieue bi ak i tamit nag eh, ci biir moo war a nag ñu taxaw seetu waaye laata loolu Mamadou lan mooy maître nageur. Abdou Khad moo di ki nga xamante ni mooy saytu lépp lu aju ci wàllu kaaraangeeg ñiy dugg ci piscine yi wala ñi nekk ci plage gi ak it ñi nga xamante ni ñoom ñooy dem ci biir géej gi. seetlu nañ ñi tamit nag ba mu tàmbalee ba léegi li nga xam ne nag moom mooy vacances yi ñu bari ciy faatu ñaata la ñu toll. jàpp nañ ñaaru fan juin ba léegi géej gi faat na lu toll ci ñeent fukki doomu aadama fii ci Ndakaaru. ko ko xamle moo di colonel Ange Michel Diatta di commandant du groupement numéro un bu Ndakaaru bu yore lépp loo ci wàllu sapeur di leeral ni ñooñu faatu yëpp ñi ngi leen nemmeeku ci plage yi nga xam ni ñoom la ñu dippee interdite maanaam yi nga xam ne dañuy tere ñu fay sangoo te ña fa faatu daanaka ñu ngay am lu toll ci at juróom-ñaar ba ñaar fukki at ak ñett ci ñaar fukki yoon yi nga xamante ni sapeur pompier yi génn nañ yëpp juróom a xeetu xam-xam la ak it xarala boo xamante ni dañ koy rek jëfandikoo ngir bañ a lab naam sax ndox ñaari mbir lay wundu loo xamante ni da nga koy jëfandikoo maanaam di ko naan ak beneen boo xamante ni da nga ciy bànneexu mu di fay ak it yu ni mel waaye nag ci fay googee daanaka nag faw ñu def ci ndànk ndaxte ci lay indee accident yu baree bari xeet boobee nag ñu ngi ko xalaat ci réewum France gannaaw bi nga xamante ni jàppalante dafa doon am diggante ñi nga xamante loolu nak soko wesso weesoo sécurité aquatique tamit lan la. bi nak boko ko ap eh, ay matuwaay yo xamanteni ni dañ koy jël ngir ar mbolé sen accident. budé nak liñu li ñu dippee baignade de loisir manam nga ñew ngir dab sa banex boy féey ay matuwaay la yo xamanteni dañuy saytu fi ngay féeyee bërëb bob yëp ñu daal di ko setal ba daal jël matuwaay yi nga xamanteni dinañ ko def ba rek ñombé du ci am. am na it benen parti bo xamni walu tagat la té nak faw ñu sukkandiku ci ay jumtuwaay yo xamanteni ne dañ ko fay tek ngir rek sa su njombe amé nga jëfëndiko ko ngir mëna dugg ci bir geej gi. prise de dégagement moy lumu doomu aadama bi saa bu labee dafay jaxasoo ba booy ñëw di ko wallu lu muy def rek moo di ŋaf ci yow tëba te kii ñëw di la wàllu faw mu libre maanaam amul lenn loo xamante ni war na ko mën a diisal pour yéen ñaa ñëpp ngeen bañ suux ci biir géej gi waral nga war a am ay xam-xam yoo xamante ni loolee lépp boo amee nga mën caa génn waral ñu ni la waroo sës rëkk ci moom te it nag waroo gaañ ki nga xamante ni da dem di ko wàllu te it nañ la jox pexe yoo xamante ni di def noo xamante ni boo defee daal incha allah da nga ko biir géej gi wàllu ko mën nañ am nag ci ne ñan mooy maître nageur ak ñaata lañ ci biir euh, ville de wa bu dene dañu sukkandiku ci adjointu maire diwanu dakaru di madame Rose vardini mom nee diwanu dakaru inshallah ñom allah dañu nag gën renforcer li nga xamanteni modi maître nageur yi yokk fanwer yi nga xamanteni ni taxaw nañ ci ba vacances yu dooree ba léegi ci kaw loolu nak yok na ci ni maître nageur yi inshallah allah fan leen wara yobbu modi tefet yi nga xamanteni ñom lay gaay yi gën fang ci été bi di BCEAO ak it ans Bernard Amne taxaw set bo xam def nako modi dal ñilap du diwanu manam dal du ville dakaru manam du dakaru lañ leen gisee waye nak ci yenen ci ay bërëb lañ leen dégg nga di nemme ko waral nag comme ni ko wolof di waxee fagaru moo gën faju moo tax nag ñu daal di jël matuwaay yooyu yëpp acca mi ngi noonu kon nag def naa xibaar yi nga xam ne baaxee nañ leen ko tey di ci mën a sukkandiku tey nag benn conseil dong lañ leen jox di moytu bërëb yi nga xamante ni dañuy tere ku fa sangu incha beneen jamono ci niveau xam-xam